ci la bayiko ñoko bind biñu défé al bayan raqab 2 dal def unwanu qul jaa al haqq wa zahaq al batil dal ci tek nak bismillahir rahmanir rahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala man ursila rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإننا لا نقول عجز الأستاذ مركبة أو غيره من زمرة الوهابية عن مقابلة الشيخ مصطفى سلة حفظه الله ورعاه لا نقول عجز الأستاذ مركبة في مسألة من مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة الأشاعرة ولكن نقول ولكن نقول لئن اجتمعت لئن اجتمعت أعداء السنة دعاة الوهابية وجمعوا أمرهم وشركاءهم في حوار ليثبتوا أن الإمام أبا الحسن الأشعري رضي الله عنه تراجع عن عقيدة أهل السنة والجماعة إلى معتقدات التجسيم والتشبيه وما إلى ذلك لا يأتون بذلك أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا الأخ مصطفى سلة شكر الله سعيه برهن اليوم على سعة علمه وقوة حفظه وحضور أدلته ومقدار تمسكه بناصية الموضوعية وبالمناسبة فإن تنسيقية الكوادر تكرر وتقرر أن بعد هروب الأستاذ مركبه عن مشافهة الشيخ مصطفى سلة هروبا أفضح عقلاء أنصاره كانت هناك محاولات لاستبداله بالمدعو آتمان سامبو الذي حاول عبثا التشكيك في مصداقية الخبر المنشور أمس من قبل الكوادر الذين يعملون على بصيرة مما يقولون ويفعلون ولله الحمد أولا وأخيرا ها هو الأستاذ شيخ تيجان بيتي مدير الحلقة ينطق بالحق جهارا ويؤكد ما قلنا على رؤوس الأشهاد فينقلب السحر على الساحر وتدور دائرة الإفك على الأفاك والحد الفاصل الآن بين يدي آتومان سامبو المراوغ عبثا فإما أن يصدق نفسه ويكذب أستاذه مركبه وإما أن يفند تشكيكه ويبرئ السائل ويبرئ ولا ويبرئ الأستاذ فهذا فهذان خياران أحلاهما حنظل بتوقيع مجموعة كوادر المريدية تاريخ 26 جوان 2020 4 ذي القعدة 1441 هجرية السلام عليكم ورحمة الله ok ma jéem a firi bayaan bi donte lee samay arab dana xaw a néew doole jaa al xaqu wa zahaqa al baatil mooy dëgg dikk na ak neen daanu na suulu na bismillahi arrahmani arrahim kawaadir al kawaadiru muridiya nee nañ ñoom de duñu ni ki ñi naan Mor Kébé dafa tële duñ wax ni Mor Kébé tële na duñ ni keneen ku dul Mor tël Mor Kébé tële na ci groupe wahabiya bi wahabiya yi moom nee na duñ ci ni kenn tële na moo xam Mor Kébé la wala keneen ku dul moom ci groupe bi duñ ni tële na pour jàkkaarloog Serigne Moustapha Sylla ah yal na ko yàlla sàmm te aar ko moom Serigne Moustapha Sylla duñ ni Mor mbaa keneen ku moom ci seen gàngoor googu tële na pour jàkkaarloog Serigne Moustapha Sylla ci benn masala ببوك مسائلي تصفصو أهل السنة والجماعة موي الأشاعر موي نني في عقد الأشاعر وفقه مالكي وفي تصوف الجنيد السالكي موي نني جلتي سنغال أهل التصوف مريد تيجان قادر كوادر نينا دوني موركبي مباكود موم تبوكتوها بيوني منتجا مارلوك سرين صفا سلة لن تلني ورا وقت والو بس بس بوب أشاعر تمام بس بس بيور بيبايكو أنسيون تبي waaye li ñuy wax daal mooy waat nañ ci yàlla ni moom ñoo ñii nga xam ne ñooy nooni sunna bi te mooy wahaabi yu ni ñoo ñii di woote jëmale ci wahaabi ya bu ñu dajale woon ñoom ñëpp dajale seeni pexe yëpp ak ñañ bokkal ñëpp ñu leen di jàppale bu ñu àndandoo woon ci benn waxtaan boo xam dañuy weccante xalaat pour ñu jéem caa saxal ni abul xasan al ashari radiallahu anhu dafa génn dafa dellu ginnaaw ci aqida bii nga xamante ni bii mooy bi bàyyi koon ci yonent bi delluwaat ci aqid dem ci aqidatu wahabiya yi nga xam dañ naan yàlla jëmm la joo man mën ngaa làmb daj ko wala ñuy wut yàlla kuñ koy niroleel buñ ko jéemoon duñu ko man ba mukk doontelee ñenn ci ñoom dañuy doon dimbali ña ca def maanaam buñ dimbalante woon ñoom ñëpp wahabi yun yëpp A ba Z buñ jéemoon a saxal ni abul hasan al ashari dafa génn ci aqidatu ahli sunnati wal jamaa mooy aqida bii ñu nekk ñun dem ci aqidatu mun nañu ko saxal fenn suñ mbokk mu baax mi sëriñ Moustapha Sylla yal na ko yàlla gërëm moom leeral na démb ci àjjuma ji leeral na ni moom li mu xam ci mbir mi lu yaatu la fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin te it lu mokkal la mokkal gu wóor te it ay tegtalam mi ngi mu àndal mi ngi ànd ak tegtalam te it wane na bu baax lu tol nan la mën a téye ci nosub tegu ci yoon maanaam jël aw waxtaan la la tax a jóg nga wax ca na nga ko war a waxee doo déborder doo génn doo ëppal doo manquil wane na ci démb lu doy a wane fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin ci kaw loolu tansiqiyatul kawaadir nee na mi ngi baamu kawaadir almuridiya nee ñi ngi baamu di dellu di saxal ni gannaaw moo Kébé bi mu xeloo bi mu dawee fatt nit ñëpp daw xel yu rëy bi mu dawee ni moom mun a jàkkaarloo waxanteeg sëñ Moustapha Sylla mu daw xel yoo xamante ni bii ñi ko doon jàppale te am xel moom ñëpp a ca ruus ñëpp a ca wedam ñëpp a ca weeru ñi koy jàppale te am te amuñu xel na ñoo ñooñu moom kamasalil ximaar yi bi sa masalul xaw mi ngay dégg waaye ña am xel doon ko jàppale bokk ci waxaabi yu ni kenn ku ci ne sa toroxtaange wër na la sa gàcce wër na la mu ni doon nañ jéem nag bi Mor Kébé dawee xel yu yooyu doon nañ jéem remplacer ko keneen kuñ naa neey Atoumane Samb Atoumane moom mi nga xam ni moom da doon jéem doon fawantu noonu fooy tukkite golo yooyu dafa bëggoon a sàkkaloo nit ñi ci xibaar bi ñu waxoon bërki démb ni ni moo kebe bi mu dawee dañ doon jéem a indi atumaan pour mu wuutu ko atumaan dafa bëggoon a weddi xibaar boobu bàyyi ko woon ci alkawaadir kawaadir yi nga xam ne dañuy liggéey te teg ko ci lu leer li ñuy wax ak li ñuy def ña nga cee sant yàlla bu baax ci njëlbeen ak mucc ñu ngi ci sant yàlla ndax yàlla dimbali na leen ba fu leer lañ ko teg te dalil ji mooy oustaz Cheikh Tidiane bi tey mi nga xam ni moo doon jiite émission bi mi ngi nii di leeral bu baax di sedd li ni li kawaadir yi waxoon lu am la te mooy bi nga xamante ni bii Mor Kébé daw na ah dañ doon jéem ñoom ci seen bopp ñoom wahaabi yu ni pour indi aatumaan aatumaan tëdd ci li mu am mu ni ba loolu amee nag njabar gi këpp na ci kaw jabar bi aatumaan moo doon jéem a jabar bëgg a wax lu amut léegi njabar gi këpp na ci kawam jank bi tamit jankub fen këpp na ci fenkat bi taal rek moo ci def léegi nag li nga xamante ni bii mooy atte bi atte bi léegi mi ngi ci kanam mu ngi ci loxoy atumaan atumaan bi nga xam ni dafa mën a dafa mën a wane lu dul dëgg day fawe ay caaxaan day jël ak caaxaan di ko fawe wane lu dul dëgg léegi nag atte bi mu ngi ci loxoom benn mu ni moom li mu wax dëgg la kenn kenn naru ko woon a indi te bu boobaa danaan ustaasam fen na Mor Kébé puisque morka bi moo ne dañoo bëggoon asamaan ñëw walla mu ni nag moom wax dëgg yàlla ay fen la doon def mu wane ni li mu doon jéem nit ñi di ci sikki sàkka ay fen la woon yu mu doon fen rek su ko defee mu mën a setal oustaz moo Kébé ñaar yooyu nag faaw mu tànn ci benn benn mu tànn ni moom moo wax dëgg sëriñam day fen Mor Kébé wala mu ni moom mooy fen sëriñam wax dëgg te ñaar yooyu boo ci jël moom day daw biir bu ne day fen mu mooy àtte bi àtte buy daw biir la àtte bune ne mo wax deug serignam day fen batay bir bi gën daw rek li ñu ngi ko bind démb ci aljuma ji tolok ñaar sama juróom ben ci wéru juin 2020 di ñenti fan ci wéru diggu tebeski ci atum junne ñent témèr ak ñent fuk ben benn ci gàddaay yonent wi sallallahu alayhi wa sallam hada bayaanun linnaasi wa li yunzaru bihi wa li yaalamu annama huwa ilahun waxidun wa li yadakkara ulul albaab جارا ما الكوادر المريدية تكنم تكنم فإلى الأمام إلى الأمام ما في التوقف من صلاة الوهابيون دير نلين دير الموت للوهابية